salaamaaleykum mbokki internet yi seetaan Touba Argentine TV ñu ngi leen di nuyu bu baax te di leen ziare eh, ñu dellusiwaat ak yéen rek comme ni mu Touba Argentine TV baaxoo muy wane liggéeyu Sénégal yi nga xam ne moo nekk fii ci Argentine ngir wan ko eh, waa Sénégal waaye wan ko àdduna bi yëpp ci lu mu doon muy wàllu diine wala ci wàllu loo xam si ni dana jëmale Sénégal kanam. wala lu mel ni wàllu projet li nga xam ne tey jii moom lañu fas yéene waxtaane tey nag ñu fa yéene ànd ak benn mbokk euh, sénégalais ñu di ko wax Lamine Diagne mu nekk fii ci Argentine doon euh, jàng lépp lu jëm ci wàllu mbalit ak nuñ koy transformé ba mañ koo utiliser ci ay domaines yu bari yàlla dogal mu nekkoon di ca jàng ba euh, ba am ca diplôme ya ca war mu génn nag Euh, jóge ci am benn projet bu mu war a bëgg a def Sénégal muy loolu mu doon jàng ñooñu mu doon jàng ñooñu ko doon jàngal bu ko ci accompagner ba mu taxawal ko Sénégal kon sëñ Lamine ñu ngi lay nuyu. waaw ñu ngi lay nuyu ñu ngi nuyu Sénégal gépp ku ci nekk si turam ak santam di nuyu kilifa diine kilifa aada yi di nuyu sénégalais yëpp di nuyu njiiti réew mi. waaw ginnaaw nuyoo bi sëñ Lamine. kon ñu jëm ci li waral jataay mm, tay bi rek muy benn projet bu ñuy wax euh, Apex Construction Consultant yi Contractor muy benn projet boo xam ni andil ngañ ko tey wax ni projet la boo xam ni day transformer mbalit mi di ko def ci ay produits yoo xam si ni danañ ko mën a utiliser waat euh, ci nguuru ci Sénégal te itam muy euh, indi emploi bu bari ci ci sénégalais yi mu mel ni ko daal projet bu am njëriñ la bu ñu laaj lan mooy eh, projet bi dëgg ci lan nga ñu koy tënkal projet bi ñu ngi ci li soxla ci projet bi mooy mbalit mi nga xamante ne bii moo nekk ci réew ma Sénégal mbalit mi la jël di ci génne produit yi ñu ngi ciy génne lu toll lu mel ni courant énergie gaz gasoil ak ndox mu ñuul mi ndox mu bon mi ñu ci mën di génne ndox mu baax ñeenti produit yooyu lañ ci génne ci mbalit mi planta bi nag planta bi nga xamante ne bi dañ koy déplacé samp ko biir Sénégal léegi nag loolu pour mu am Sénégal faw gouvernement bi ubbil ñu bunt yi ñu mën koo def Sénégal buñ ko fa indee daanaka province bu ne bu dee dañ koy samp 14 régions yi région bu nekk danañ ci danañ ci jël lu mille cent emplois mais bu dee nag benn dëkk rek lañ ko def pour utiliser ko si réew mi yëpp booboo waa day doon mille cent kese loolu dépendre na ci nguur gi ak seeni i vision ak seen i calcul. waaw su ma déggee li nga wax dafa mel ni kon projet bi maanaam ñoom ñi xam ni ñooy bailleurs yi ñoom li ñuy laaj mooy ñoom am accordu Sénégal léegi suñ ñëwee ñoom maanaam ñoom ñooy def ñoom ñooy def investissement bi li ci war lépp ñoom ñoo koy def ci benn période bu déterminé ñu yor ko ñoom di ko exploité léegi su jeexee. maanaam Sénégal door ko moom wala bu fekkee du noonu. waaw ñoom bailleurs yi ñoom bu ñëwee projet bi ñoom ñoo koy financé dërëmu Sénégal du ci dugg léegi buñ buñ ko financé dafa am détermination des temps boo xam ne après ñoom dañuy bàyyee Sénégal plante bi ak lépp nga xam ne Sénégal moo koy moom loolu nag contrat yi après ñoo koy wax décision entre bailleurs yi la ak euh, état de Sénégal. buñ gisee projet bi bu ñu waxee lu jëm ci wàllu mbalit projet la boo xam si ni maanaam xaalis bari lay laaj te itam du projet bu ndaw ndaxte kon lu mel noonu euh, nga xam ni ak emploi ni mu ni mu ni mu ni mu ni ñu ko soxlaa ci Sénégal création société yi créer emploi bu ñu gisee ni emploi su euh, projet bu mel noonu boo xam ne dana dana externe lu bari ci ci emploi lu toll noonu kon loolu war a intéressé nguur gi la ndax loolu jox nga cee jokkoo ak nguur gi ba waxtaan ak ñoom war nga leen projet bi. ak ñoom bu fekkee loolu am na ñoom lan lañ lan lañ waxoon ak fan ngeen ci tolloon wala bu fekkee tamit amagul naka lan ngay sàkku pour ci nguuru Sénégal ba xañ na loolu ñu mën koo jëmmal ndax buñ déggee ni nga waxee mel na ni njëriñu Sénégal la. waaw waaw projet bi njëriñu surtout jeunes yi sénégalais yi ndax ak famille yi nga xamante ne bi dañoo néew doole te yàlla dogal ne amuñu profession yu bari donc loolu moo tax moo gën a sonal daanaka société sénégalaise ñun nag biñ ci liggéeyee suñu xel daf ne. ñun lañ autorisé ñu dugal ko Afrique malgré que ñun af Sénégal sax taxul ñu jóg Afrique gépp a tax ñu jóg mais nit bala nga yóbbu dara ci yeneen réew tàmbalil sa réew ba pare waaw da ngay tàmbalee sa réew boo paree génn yóbbu ko si yeneen réew yeneen réew yi bala ñu koo déggee feneen di la ci xoole beneen bët daal moo tax bi ñu jógee jóg rek Sénégal lañ def direct bi ma jógee Sénégal yi léegi yàggul mu ngi doon ay quelque un mois et quelques jours yóbbu nañ ko Sénégal yóbbu nañ ko ci pale bi ministre de conseil recevoir nañu euh, jaar nañ fu ñu war a jaar kilifa diine yi yëgal nañ leen ko muy Touba di Tiwaawan yëgal nañ leen ko dem nañ ba ci ñoom wax leen wax leen leen ko pale bi it wax dëgg yàlla bi ñu ñëwee recevoir nañ ñu jox nañ ko ministre bi jarul may citer non parce que affaire état moom diplomatie la ñoom xam nañ seen bopp ñi ma ko jox man ñoom it xam xam naa ne xam naa leen ñu ngi ciy gëstu donc ñun li ñuy ñaan rek moo ñu facilité ko parce que projet la boo xam ne njëriñu réew mi la yëpp njëriñu jeunes yi la te monde bi gis nga ni mu difficile projet yu mel nii nga xam ne day sukkal askan xale yi nga xamante ne bii amuñu liggéey ñu am liggéey te kër goo jox liggéey daanaka ab famille ngay jox liggéey donc 1100 emplois du lu ndaw du ay caaxaan. moo tax bi ma njëkkee jóg ba ba koy defi mënoon naa ko jóg rek am naa yeneen idée ak yeneen contact ak yeneen réew yoo xam ne mën nañ ko fa mën a def mais yàlla dafa dogal ba bi ma ci waxtaan ak sama waajur dafa mën a ñëwal fii ba pare bala ngay dem feneen donc moo tax bi ma jógee jóg rek ma indi ko sama réew may xamal ne état bi tamit monsieur le président déplacement yi ma ci def amut kenn ku ci dugal dërëmam bala ñoo xam ne ay ay comme ça ay yeneen groupe a ngi ci ginnaaw ak yooyu volontairement laa ko indee pour sama réew yaa ngi dégg léegi ñi bailleurs yi bi moo leen ko waxee dañ ci kontaan ne ma demal ci yow la des bi ma ñëwee wax naa ko ministre bi en personne ne ko ci yow la des yaa ko yéexal durant 60 jours jamono bi ma ko koy jox bu ma waxoon waaw durant 60 jours tey fekk nañuy réaliser tabax yee ñuy installé planta beeg yooyu yëpp pour mu pour ñu def ko si réew ma pour sénégalais yi jëriñoo ko. waaw comme kon buñ déggee li nga wax mel na ni jot nga cee jokkook état bi ñenn ci ñi ñi yittewoo loolu ci ay conseils yu nekk présidence de la république comme ni nga wax bëggoo tudd turbe yooyu loolu dinañ la ko nangul waaye léegi comme li xam ni projet bi yow bind nañ ko ba. maanaam ñi nga xam ni tamit ñoom nga ci àndal ñoom jox nañ la ay kayit yu leer yu wane ni maanaam euh, projet bi niñ ko bëggee ñoom ak niñ ko niñ ko nar a doxale tey ñi ngi wax ni président de la république war na fee ñëw bu fekkee confirmé woon na fii ci Argentine xëy na peut-être ci dimanche bi wala lundi jàpp lundi bi ci benn invitation bu mu fi am bu ci Jeux olympiques yu yu yu yu war a am fii nii léegi est-ce que jot nga kook ak euh, ñi nga xam ni mooy ambassade bi wala ñenn ci ñi ñi yor wàllu prix ñi yor euh, service présidence pour bu ñëwee nga mën cee toog moom man koo jox dossier bi en pour mu mu xoolal ko boppam wala loolu amagut wala bu fekkee amagut tamit ndax jàpp nga ni euh, maanaam looy sàkku la pour mu mën a am wala ñi ngi ci jot a waxal yaakaar nga ni ñu ngi ciy dox dox boo xam si ni xañ na jarut loolu. waaw laaj bu am solo nga ma laaj. avant may dem Sénégal bi ma jógee bay dem ñi nekk ci association bi yëgal naa leen ne maa ngi yóbbu projet bi Sénégal comme man ñoom ñoo fi représenté état bu Sénégal donc bi ma leen ko waxee rafetlu nañ ko encouragé ma dem yóbbu ko bi ma ñëwee nee naa leen ñibbisi naa mais boobu ba léegi ñoom gisuma benn pas bu ñëw jëm si si man pour gëstu affaire bi benn ñaareel bi ambassade Sénégal bi ne en Brésil amuma contact ak moom wax dëgg yàlla. amuñu relation amuma contact ak moom malgré que gëstu comme ça it daw defuma ci man tamit ay démarches dama def direct rek yóbbu projet bi Sénégal jaar fa ma war a jaar ba mu àgg si si état bi eh, liñ siy ñaan daal mooy ñoom ñu faciliter ñu ko ñu réaliser ko parce que njëriñu ñëpp la du man kese parce que njëriñu sénégale yëpp la te yu mel nii la réew yëpp di wër daanaka ministre boo teg pour mu indi lay projet la comme doomu sénégalais bi def volonté volontairement yóbbul ko réewam te man ndaw laa woo xam ne damay gis lu baax rek su ma ko gisee waruma ko yóbbu fenn fu dul sa réew loolu moo ñu ci amal importance moom te xool lañ koy defee. waaw comme ni comme ni ñu déggee nga wax ko mel na ni lu lu lu am ñu am njariñ lay doon ndax gis nañ ni comme bu dul loolu sax mbalit dafa sonal Sénégal. donc kon buñ gisee ñoo xam si ni mbalit mi mën nañ koo jël te réew yu mag yëpp di ko def réew yu mag yëpp boo demee mbalit dañuy wax ne bokk na ci li gën a matière bi gën a bi gën a fort fi ñu toll nii bi gën a précise parce que léegi dañ koy jël di ko di ko di ci def courant di ci def lu ci bari ñu ko def réew yu mag yëpp léegi mbalit kenn kenn kenn seen kenn sànneetu donc kon bu ñu mbalit mi sonalee ñun Sénégal euh, ba nga xamee nii da ngay gis ci mbedd mi sax du mbalit moom ñu dem ba léegi mën koo jël di ko transformer di ko def ay ay ay ñuy préoccupé wu ci fu ñu koy def fu ñu koy stocké. Mhm. ndax loolu amoon na fi ay problème problème mbëbës yooyu yëpp ñu fa daan ñu fa daan ñu fa mbalit mii mu dem bay xaj na di di di sonal dëkkandoo yi ñu ko war ak yooyu. donc su demee ba gis ni ñoo xam si projet boo xam si ni mbalit moomu ñu daan jël di ko sànni sax mbalit moomu léegi dañ moom da koo soxla pour man koo transformer ba nit ñi mën koo soxla waat kon yaakaar naa ne loolu projet bu bu am solo lay doon jëlee nag ñi ci mën a liggéey ñëpp ay milliers de personnes yi nga xam ni mën nañ ci am. liggéey ak indi si réew mi. parce que mbalit tey bu wàññeekoo feebar yu bari dana wàññeeku ci réew mi e, ñi doon ñim doon xatal di leen feebar yu bari dana wàññeeku daal daanaka affaire bu am solo la pour pour pour réew yépp réew yépp koy exploiter. donc comme ñun yàlla dogal na am nañ ci xam-xam liggéey nañ ci ñu bëgg ko yóbbu daal suñu réew. incha allah baax na kon. nii ñaan yàlla rek kon xañ na bu fekkente ni mooy li gën ci Sénégal. suñ borom yombal ko ba nga xam ni ñëpp danañ ci mën a jariñu liñ ci yéene lépp yàlla defal la ko ci te mooy sa njariñu réew comme ni nga ko waxee benn si lépp lii ma war bépp moodu moodu boo xam si ni génn na bu caagee ni wut xaalis rek envoyé Sénégal mm-hmm. parce que loolu généralement day yem ci sa ci sa famille ak yooyu waaye di apporter benn savoir boo xam ne si ni jàng nga ko ci am réew wala benn technologie boo xam ne gis eh, mooy gën am impact ci économie bi sax bu ko gisee kon ñu ngi ñaan yàlla eh, yàlla defal la ci tawféex ba ni nga ko bëggee nga amee ko te lépp nekk njariñu Sénégal kon ñu bàyyi la nga tëj rek incha allah. waaw waaw gërëm ñëpp di leen gërëm yéen Touba TV Argentine. di leen wax na seen liggéey rafet na malgré que ñu ngi leen di xool si réseaux sociaux yeeg yëpp wax dëgg yàlla chaque jour yéen a ngi si xool liy jëmale askan wi kanam di ko def di ko def ak anam boo xam ne du ngeen si laaj nit dërëm donc loolu lu lu rafetlu la man en tant que euh, citoyen sénégalais may rafetlu liggéey boobu. jërëjëf kon mbokk yi ñu doon topp di ñu diglu lii moo nekkoon li nga xam ne moom la ñu indi leen tey muy benn projet boo xam ne si ni benn doomu Sénégal am na ko ñu di ko wax Lamine Diagne mu nekk fii ci Argentine muy projet bu jëm ci lépp lu jëm ci wàllu mbalit ñu war ko transformer def ko ay produits yoo xam ne si ni Sénégal daf ko utiliser mu mu andi woon ko tey ngir présenter leen ko di ci sàkku itam. Euh, jàppale gouvernement bi ba nga xam lim ci bëgg dana ko ci mën a kon lii mooy li ngeen indiloon tey lii nag mooy li nga xam si ni moo war bépp émigré te loolu la fi Touba Argentine TV tamit bokk na ci ay objectif am euh, wane Sénégal yi nga xam ne am nañ ay projet euh, yu jëm Sénégal yoo xam ne si ni Sénégal mën na cee bénéficié mu wane ko ba nga xam si ni ñi nga xam ne ñoo jiite réew mi danañ ko mën a gis ba jàpp ci ba lool nekk njariñu Sénégal kon ñu ngi leen sant di leen gërëm wasalaamaaleykum wa ba beneen yoon incha allah.